soppa mangi sapunya sàkku ñaan bur yàlla safar ñu ka ñaan aji xañaan sax ñaan rasul wali sawil udul wasabi ilumul butul fi kulli mayen kamol bar xama ñas yow yay ngalam tabak niiram ak i tawam sa kàddu neex ba mel ni lembaay yow yay ngalam yow yay ngalam baay fu mu juddoo tey ba ñaseen fu mu yaroo ca kuusi baay ñas ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaada màng siin yowmal xamis ca takkusaan koowaa daldi mel ni saan malaaka yaa nga sappe naan subhaana barhama yay cosaan yowmal xamis ca takkusaan fukk ak juróom sëhrul manaan mu dib rajab waa kay naan waxal ñu xaw su foy fanaan atum junne gannaaw gàddaay ak ñetti téeméeri at billaay yu teg fan yu niiwu niiw naa keroog la xam takkaay mu da juddu barhaama ñas bilaa mira wala labaas xarnu yaddin bi yaa ko tas bàyyi barhaama yaa da xaw su ñas ahmadu jógal taw na ba tooy muusa jógal taw na ba tooy takkal machine yi sa tool du ndax mu takkal ma ay garaat may ma ndigal ma jóg jiyaat ma lan lay doxaat ëllëg ana ban ay rapport lay wàcc bay dolli ma ndax ma wéy la yow yaa koy ba tax mu ba tàmmu law nekk di lëw ëskey barhaama yaa fi xaw sa wi moo da habdalaay waaye loolu ca ësal bi laay nga wàccaat fii ñu naan la bay ñes ngay doom di bay ci habdalaa ni mu wegoo na lewete bay tooñ ko taxul mu di jotee kas ko itam soo haajoo mu sedd la da daan bale ka jillale ñi féewaloo mooy jubale te ak tabeem daay matale soppeeku nan ku tedd ni mu wegoo la lewetee tooñ ko taxul mu di jotee xas ko itam mosula tee soo ajoo mu sedd la da daan bale ka jillale ñi féewaloo mooy jubale te ak tabeem daay matale soppeeku noon ku tedd la raw na ba raw na leen ci taar baatam bu neex ba raw gitaar te ay waxam daay wuutu saar ngir lu dëppoo quraanu la raw na ba raw na leen ci taar baatam bu neex ba raw gitaar te ay waxam daay wuutu saar ngir lu dëppoo quraanu la maam astu jànka yaa gore maam astu yaay ñayu xare yaay ka mu ba jooy ware looloo waral tey ñoppuree maam astoy géeju mbambulaan ndoxam mi neex naay walangaan jigéen ñi roy leen tey dagaan ci moom boroo seeni bagaan maam astu jànq mooy kënu balam ya moo dem kënu toj xoli man xat sëkkënu ba kënu soxna say kenu maam astu jànqaay geluwaar matal na mbuule mi dawaar mbiram mi tolla raw na waar kii moo ñu him kii moo ñu waar matal na xaqi boromam sat na ci xaqi moromam matal na xaqi sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral mu noonu ci moom maam astu mi lay gan doom dawaa ji donnu mbóol ma moom fay dum ba ngir moo gën ca moom maam astumi ay gànjaraam la jaay jëndee ko am njaram jaayanten ak borom këram matal ko làqe ngaramam moo liggéeyal borom këram ba am tiraanga am ngërëm tajaamu buur biy boromam ba na doo gis moromam jox na ko leppi xalalam ngir doom ju baax xam barke xam waaye jëmme barke xam la bale am meraar jee xeyaatam maam astu jànka mooy ngaram xayma ja foor na ay lamam duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaaye ay dërëm maam astu jànka fam soso am nen ca ñoom bu ca soso mooy junne cuuj ba ca soso te duñ ko xayma ak lem sa sot njaaraama soxna as yow sa doomi doom ji foo taxaw ci dun bi fekk leen ñi raw yaa barke njànqa maa la naw mamastu jànqa yaayi baayes kii bàyyi doom yaa seeni bàyyi moo foor garaat ko we médaay ngir masta dem baa wax lu haay maam astu mooy nawet bu bees lool lim boxoom na sàq fees nooraan bi xiif lekkel mu rees dembuloon xam na lu wees maam asta mooy yaayi ka raw ka weeca gaayane ka raw ka boole ñaari buum raw mu mel ni soowa kam ka raw sariyaatoog haqiiqatu ak ilmu ak maarifatu ak rustu ak wilaayatu ci jenni yaay ji mooy maam astu jànqa taari xam hoon ma gis ku ba nettalil leen ay waxam ci ay xibaari sax-saxam man dégg naa na ak ndawam njànqa da daan muuru sëlëm ba mag ñi naan kile mbiram ak nim ndawee daf ñu xëlëm te daawut foni ay gune da daan sikkar fu mën a ne ngir xut bu fu mu fokk mu doon fu mën a ne kenn mës sa gis maam as sa wax ci kaw ci ay sikkar la sax te mos sa ko sax te yandoor ngir na sax sangi jigéen yiñ fi xamoon ci dun bi yaa xaw fiñ xawoon mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkaan moo soxoon rijaal ya gën juróom la woon yónnantoo saabaam ya woon ñeent baax ñoon toon xam na ñu juróom la woon xomar juróom bennal na leen ibnu abdul asis ka leen royoon ci mbaata fonk leen te tànn seen yoon leen juróomi soxna yi itam ñoo gën fii ak jëm maam asta roy leen ba xam ku ñëpp nawloo moom itam xadija toog fatimatu haayisa toog asiyatu maryaama ñii jël atu maam asta mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na boo xëyee da wéy jigéen ñi baax ñi honte wéy wayoo ko woowa way du way maam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam nañ njëriñam bagaanu soow yaa karawam njaboot ga xam nañ aw ñamam mooy yaayu mboolem ndongo ya toggoon na fon togg ya toggoon wal ya soq ya toggoon ron ma coono ya te mastafaatal waxtu wa ak wir da waaw wa wa te fonk lool waliyu mama sëjël na raaya jigéen ñi xam ngeen royuwaay maam astu jànqaay royuwaay xaw ci yoonam ngeen la waay bu leen ko séentu raw na waay sa doom ji géej la duñ ko ŋas siggil na gaaya sant ñes te toolu diina moo ko ñes banoo ni diina xëy na mes sa doom ji njànq moo musal roo yu suuqoon ci mbugal setal na seen tilim saxal na leen ci ñuy jëfee ndigal maam astu jànq yaa xam koo xam ne xam ko doy na ndam sangab araabi ak ajam yaa suri sani yaa mën a jam sëriñ si buñ teewee fa baay ñaamel ni ndongo ñaani doom sëriñ say barkelu ca moom dikkin ma ngir xam cëri yu ba baay juddoo la sunu maam abdul ilahi ñas na maam asa yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man taraam xatam fati moom la bay wax liir la booba ci lalaay rijaalu xay bu yaa seeni gaay nangol ka bay moo formé jamaano bi ab saayiram yombal na mboolee mi mbiram waa borom jamaanu duuguram dikkam yombal baatinamam sa doom ji mooy xut samaan bëwrul buuri kenn du naan la ci géejam fay fanaan lu dul ci suufu asamaan sigil ba laalil asamaan sa doom ji mooy xut samaan walam yaqaf jawra zamaan mooy rabbu am nen wa amaana sa doom ji rek moom lañ fi xam mooy nit ku ñuul ku naari gëm di ko dagaan di dem këram te tër bi yoo ko xam ngërëm liñ gis ci bay ci xeeti xam xam ak wilaaya mosta xam gëstul ba xam ku mel ni bay ñes yaaram yi jiital fa xam sa doom ji fu mu gane mooy jiite mbooleem ña fa ne baa doolu buur nit ak jinne jigéen mag ak gune wurus la yaa doon sëdëfam jagal la yaa di masri xam yow kenn njànq lañ fi xam ku meññi mboon mu kenn dut xam sa mbon mi mooy tiitër ci xaam lool moo waral xammel ni saam ñooñ Mustafa mooy seen imaam yaa fis ba goy doon samaam bày yaaram la xaas la garme la bu tull tull la kenn la ku yàlla buur bi tànn la te kum defal tiraanga la taxawlu lee taxawlu naam di ñaan ci yàlla rabbanaam mu tàggatal ñu haddina allah mu may ñu xal ci barke ci barke abdul ilaahi barke haa isatu janqa wassalaam ala nabi xayril anam